wax nag ki borom réew mi borom réew mi di ko wax ne ko waa léegi ñelaan dina ko invité cere mbuum quoi borom réew mi lu waxati borom réew mi dana nag borom réew mi <laughs> xana laaj ñu bu ñu laajoon <laughs> neena neena neena da ko ñilaan invité ci rek buum donc wa de en ah, ñilaan la wax mu invité waaw ñilaan kon invité ko ci rek ah, kon man na am sax man na am ki <laughs> nañ ko top nañ ko top dede am sens comme ñilaan la wax mu invité man damaa yaakaar borom mbaxal mi lay wax. déedéet dañ ko topp bu ñu àggee ñëw ñu jàll. bu ñu ñëwee ñu topp waaw dañ koy laytoo. waaw kon borom réew mi ah non mais mooy borom réew mi kay borom réew mi kay. ah déedéet mais borom réew mi ñi mën naa dem te borom borom koñ ñi nekk. problème bi boo nee boo nee da nga jiraat invité cere moom dalaa dalaa ñaanaat kon ñaari minute ci sa temps problème <laughs> ah. waaw dala koo ñaanaatoon ah. ma de kon boobu rëcc na ñaan dama jaari bi may nga ko ba problème <laughs> ah. bi kañ lu la jaar nga may ko ñu ngi koy duy di ko ñaanal jàmm pourtant nag day def liggéey bu noble mais lu tax muy nëbb kanamam man jaaxal mais istil la rek façon istil la man loola ma siy bàyyi yow kanam bi ma gisee damay taxaw parce que dama gis sama istil da muy waxal bu àndul ak moom it da ngay gis yar ak teggin la mm-hmm. waaw communication du tee mu jàll. gis naa gars yi di ko jox ay cadeau nag xam naa fa lañ ko bëgg a identifier. Hmm. <laughs> am na ko joxoon jàllaa bi koy wax naan kii sama bi la yónnee woon ah. Ah, hmm. ah. ñu ngi koy nuyu. nañ joxe rek. Hmm. waaw ak oustaz ceeb. Oustaz Thiep waaw Oustaz taalif bu neex. sax la génne. day taalif. waaw dafa aay de Oustaz Thiep waaw day taalif kay. oustaz ceeb kay sooy bu du ba raw gaay il faut mu ñëw ay riim yu saf sàpp la. ok ah, nee na woon émission taalibe bi sax da sponsor bu dëgër la.